asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñuy safoo di ñu seetaan yéen ñi bi ak ñoo xamante ni aussi safoo ci li nga xamante ni mooy ci ñu am contentement baax a baax a baax waaye di ñuy ziar aussi auditeurs yi ak auditrices yi nga xam ne mooy 95 point 5 muy prestige fm euh, suñu gan gu bees googu euh, di jox ñëpp ñu ci ñu koy ñu koy suivre tey nag seen émission pat ni moom moo dellu siwaat pat ni comme ni ma leen ko tàmm di waxee rek mooy émission mooy ay jël émission bi nga xam ne leen di jëlee li wér-gu-yaram gi fekk leen ba si seen biir kër ah, mu indil leen ko macha allah ngeen jëriñoo ko tey ñuy dalalaat kenn duñ ma wax gan parce que plateau bi min na ko allah muy madame day Fatou sen ah, madame Fall ah, nekk sage femme d'état fee ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès ñu gën ko xam ci hôpital régional ñu koy wax ñun NFS lañ koy woowee NFS Ndeye Fatou madame Fall ñu <laughs> am contentement di dalal suñu plateau encore une fois merci Diarra maa ngi nuy téléspectateurs yi ñuy seetaan internautes yi di nuyu tamit directeur télé bi parce que effort bu muy def ci santé bi di population bi waaw sa oublier tam nuyu sama directeur hôpital docteur Faye di nuyu sama professeur service professeur Mariatou Thiam Coulibaly ak sama major euh, mu ne na ta mu ne na wàdd ata ami jiite di nuyu tam sama collègue yëpp waaw kon waa hôpital sax Sakhir Ndiégué yéen ñëpp ñu ngi leen def un coucou bu ñu ko tegee ci loxo directeur dafa naa ne teg nañ ko ñëpp dégg nañ leen alors tey nag madame Fall ñuy waxtaane benn ponk bu am solo euh, ñi xam nga fan yëpp ñu ngi wax ci sida ak femme euh, sida nit yi dem nañ ba yaakaaroon ni sax sida jeex na waaye dafa mel ni feebar bi mu ngi fi ñu buggoon a xam ci ci rappel tuuti rek nga wax ñu lan mooy lan mooy d'abord sida waaw jaay boo ma laajee ci dinaa kontaan ci wax ko parce que feebar bu am la bam la comme ni tension amee diabète amee mhm. hépatite amee syphilis amee mhm. feebaru am la muy ci nit ñi ñu ngi koy ñu ñu ci jàppale femmes yi di leen dimbali mhm. ñuy ëmb di imbi dañ ko wàll seen doom di fexe tamit ñu bañ ko wàll seen borom kër yi wala wàll ko keneen waaw moo tax boo ma laajee dana sadu joxo feebar wax ma nit ñi comme ne wax dañuy foog ne amul parce que dañ koy rusa wax ci kaw mais feebar la comme yeneen feebar yi alors est-ce que mën nañ xam lan mooy mode de transmission bi sida maanaam daal naka lañ koy naka lañ koy joxoon naka lañ koy amee. naka lañ koy wàllantee wàllantee voilà. waaw sida boo déggoo ñu ne sida infection au VIH la. Mhm. waaw sida maanaam feebar bi la maanaam ku feebar si ñu dese yaram mais wàllante mhm. mhm. sëy. su wàllu sëy bu ñu ne wàllu sëy nag moo xam góor ak jigéen la moo xam góor ak góor la mm-hmm. Mm-hmm. waaw beneen jigéen ak jigéen la ak jigéen ak jigéen ak jigéen moom loolu am na ah dëkk bi daal day waar lépp lañ fi moo tax lépp la ñuy wax moo tax lépp da wàllante côté bi a bëri daal mm-hmm. euh, góor ak jigéen góor ak góor waaw beneen ñaareelu point bi mooy euh, par deret maanaam nit dagg waaw nit kenn ku dagg sa yaram bu dee wér na amul dagg-dagg virus mënul a dugg mais bu dee dagg maanaam wàllante abalante ay lañset ay ay ay ay nu tuddati piqûre ñuy mhm. par exemple mhm. wala piqûre sax même hôpital piqûre wax na ci piqûre nit keneen jàmm ci donc mhm. mën na ko wàll lañset moo xam épilé yeeg yooyu nit dagg ci jël keneen alma entre copine mën na ko mën na ko wàllaate wala ciseau wala paaka sax yaa xam xew yi la nit ñi paaka yi ñëw yi nga dagg sa morom dagg deret bi daal bu daggee si kenn su deret lay aw mu wàll keneen ki beneen bi ñu amal solo ñun sage-femme nag mooy wàllu yaay ak doom <laughs> foofu daf aw yaay ak doom comme ku ëmb sa doom si ëmb bi si ñetteelu weer bi mun nga wax si ñetteelu mois bi dernier bi mun nga ci wàll sa doom mm. wala booy wasin mun nga ko ci wàll wala ngay nàmpal mm-hmm. fekk am nga ko te xamoo ko ngay mm-hmm. nàmpal sa doom mun nga ko wàll mm-hmm. waaw ñetti fànn yooyu moo am si façon bi ñuy wàllante. kon defe naa ne loolu loolu leer na nañ euh, wax na ko léegi nee na mën nañ ko def par les rapports sexuels. Mm-hmm. donc mën nañ ci wàllante. Mm-hmm. mën nañ ko wàllante aussi si li nga xamante ni mooy. Euh, de mère à l'enfant à l'enfant mm-hmm. maanaam soit nag buy accoucher wala mu koy nàmpal ak ak ak meew mi ku ne xam ne ni meew moom mm-hmm. euh, dafa sax direct la sax mën nañ ko wax ne noonu euh, beneen bi aussi troisièmement bi mooy bi nga xamante ni moom mooy voie sanguine bi maanaam par exemple nga mm-hmm. nga jël même objet bi nga utiliser ah, ko wala rasoir wala mm-hmm. sax ñi nekk ci salon de coiffure yi sax ah léegi sax heureusement sama perruque léegi moom noppal na nit ñi <laughs> madame Fall donc ah, mais ba tey fàgg ñu ñu gën a fagaru rek gën a bàyyi ci xel parce que tamit am na ñoo xam ne ba léegi ñoom ñi ngi préféré di mm. ñaw seen i greffage puso yi ci mm. kii yi eh, eh, pédicure yi manicure mm. ñu ciy def attention bu baax a baax a baax a baax yooyu tam mën nañu objet yi ñu koy décontaminé voilà ñu koy décontaminé ah ba ci borom salon dañu war a décontaminé que boo déggee comme pédicure la. yëpp kay presque. waaw mi ngi noonu. Mm-hmm. boo paree nga def ni nga defee yaram dafa kii dafa sensible. Mm-hmm. mu nga dagg ni mm-hmm. yàlla. très bien kon daal ñoo ko déggandoo noonu euh, mooy mode de transmission yi alors ñu xuus dugg ci li nga xamante nag moom mooy moom mooy mm-hmm. fi mu toll nii. ci mm-hmm. prévention la toll. ko mën a fàggoo. li am solo la. Mm-hmm. ñu ne balaa ngay faju faju nga fagaru moo gën. ndax buñ sañoon kenn am. dafa nekk loo xam ne am na sax na. mode de prévention bu njëkk. Mm. mooy dépistage nit ñi dañ koy ragal. Mm. mais luy musiba mooy boo ko amee te xamoo ko mi ngi law sa yaram ba tôt ou tard day feeñ mm-hmm. mi ngi law sa yaram te yow yaa ngi dem yaa ngi koy wàll bu dee jigéen mën nga mbëgg nga wàll ko sa doom mm-hmm. wala nga sëy nga wàll ko sa borom kër bul si biir sax yaa xam ne amee wuñ ji ak leneen mm-hmm. bu fekkee teel nga ko ñu jël jël di la tey te ngay faju amaana nañu wàññi ba doo mu doo wàll keneen doo sa doom waaw beneen bi may wax sànq wax nañu voie sexuelle voie sexuelle li ñuy wax ku am soxna boo mun a yem sa soxna nga yem si moom maanaam fidélité. Mhm. wala tamit euh, nii lu mu tudd xale yu jigéen ki nga xam ne amul jëkkër. bu mhm. mu nee abstinence maanaam mu téye boppam. Mhm. mu mànd mu téye boppam. bu ko mënul mu utiliser préservatif. pour protéger bu dee ba loolu mënu ko mu utiliser préservatif. muy jigéen muy góor. ab séance. leneen tamit lu am mooy am na am na fi am na Sénégal mooy abus sexuel maanaam viol. viol da nga gis léeg-léeg ñu sàkku nit mu rus gàttal du ko wax. mu tëdd dina baal alors que ki la viol xamoo ko. xamoo ko jàngoro la yor. te boo gisee prise en charge viol léegi dañ cee boole prise en charge yes prévention. parce que xamuñu ko lu viol kan la xamuñu. billaay ndax am na wala amu ko. donc loolu loo war a déclarer la. donc. Euh, voie sexuelle loolu am na ci mooy prévention utiliser abstinence wala utiliser préservatif wala na cas d'abus sexuel maanaam bu ñu la sàkkoo te euh, maanaam xam ni ko xas olof abus sexuel bu ñu la bettee viol la maanaam mooy sàkku waaw si mhm. sutura ñu mhm. faj la mhm. pré aar la euh, beneen bu may wax tamit mooy li ñuy wax sànq objet objet tranchant wax nañ ko rasoir kenn du ko bokk mooy lañ setam muy xam si watu laa watukaay góor yeeg yooyu. su mhm. watu nga sa kiw bopp. Moussa Mbaye ay leen di abbalante rasoir yi. mën na loolu surtout. Hmm? bu wekkanteeg loolu mu nga ci jël feebar. te dafa xew de waaw. xale yi ko jël pikiir bi loolu tamit waaw mën nañu bàyyi xel ci eh? loolu. ma cap pare. dox as dox eh, xam nga cigarette bi bu njëkk ba dañ ko doon abalante. waaw maanaam booy toxal ma. mais nañ nañ bàyyi nañ bàyyi lan la jamal ma. booy jamal ma dinañ ko bàyyi pikiirante bi dinañ ko bàyyi parce que bàyyi xel si loolu mhm. donc lu ma wax dépistage bi volontaire bi tam moo gën mhm. ku nekk war nga xool sa bopp si daa tànnul ku am xaalis tànnul xale tànnul tànnul mag mhm. tànnul keneen ministre wala dara ku nekk mën a nekk sa moo tax ñun jigéen saa ñu umbee dañuy dem di dépister même saa am na périodiquement par année da ngeen xool ndax nekkul seen seen seen programme élargi de vaccination bi. Mhm. Euh, nga xam ne da ngeen di saytu jigéen ñi kii est-ce que euh, parce que yaa ngi wax léegi ne dépistage volontaire maanaam. Mhm. du loo xam ne dañ la koy forcer. Mhm. dalay dalay neex. Ah, nga dem nga def ko. mais jigéen bi nga xamante ne peut-être dafa ëmb est-ce que am ngeen ay cas yoo xamante ni ngeen ngeen def ko. waaw parce que dina am cas yoo xam ne ñu ngi siy signe am na ay signes. maanaam ku dem lu mu nekk sa yaram mu jël jëm feeñ ñu gis nga am ay dermatose wala ay peres tuñu ñu xalaat yooyu. ñëwal ci ñëwaatal ci kii bi ci si yi tuuti. waaw wala nga jeex. Mhm. wala nga am jaare bu të tëwoo wér. wala sëkkat bu kii comme tuberculose. sëkkat bu tar mhm. bu tar am na si ñoo xam ne. bu ko mhm. docteur bu xoolee rek. danaan kii nañ ko fa test bi. day njott waaw parce que pour faj la. ak néew parce que dinañ lay faj nga tëwoo wér. loolu ñu xool bu làqu ci suuf mooy amaana def loolu. parce que boo xam boo xoolee virus boo xam day yi ndaw lay maanaam yow doo doon aar maanaam xam nga jaayal bu ñëwee doo doon song. day dindi barrage bi. barrage bi ku lay ubbi bunt maanaam ne feebar yi ñëw leen. très moo tax nag léegi. da ci feebar yëpp dootoo am protection. moo tax léegi garab bi ñu la koy jox mooy néew doole virus boobu. ba nga xam ne dama xam ne sa organisme dina résister. très bien te dina tax tam bu bu ko néewalee doole doo ko wàll keneen. muy sa fekk jotoo kon waale sa jëkkër muy sa keneen wala feneen fekk xale jigéen bu sëyul woon la yow mënoo ko waale keneen mm-hmm. parce que day néew bu am xasee néew du am fu mu garab gi noonu la tudd mm-hmm. donc euh, gis nañ aussi ci ci dépistage xam naa nañ fa tollu tuuti parce que parfois mm-hmm. nga ñëw ko euh, sensibiliser nit euh, ñu naan la dépistage ndax mu bëri naa la dañoo yaakaaroon dañuy fay te dépistage bi je pense que ni aussi c' est c' est volontaire. Mm. maanaam daf lay neex. Mm. nga dem mais aussi c' est gratuit ba pare c' est c' est discret. voilà fi nga foofu dafa am importance foofu moo ëppal importance. Mm-hmm. parce que dépistage bi yow maanaam boo duggoon hôpital hôpital dafa façon euh, fànn bu nekk am na sage-femme am infirmier am médecin mais dañu am assistance sociale. Mm-hmm. assistance sociale ñooñu ñooy dimbali nit maanaam ku néew doole. du sida kat dañuy dimbali ku néew doole. Mhm. ku am problème tamit ñoom ngay waxtaan ak ñu. ngay assister problème mhm. boo duggee bureau ñeen ñaar ak yàlla. lu mu foofu foofu lay yem li ngay dox si tamit foofu la da koy fajalee nga dem kenn du la xamal. Mhm. maanaam boo bëggoon dépisté hôpital boo dugg ba ne assistance sociale fan la ne ñu wan ko. xam ba am tuur sax. dépistage bi def tuur am na loo xam ne moom mooy xam ne kii. ay numéro yoo xam ne dañ ko ah. ko codé comme boo biir personnel sax mën nañ bañ xam kan mooy kan. très bien waaw ñun nag sage-femme yi lu ñu di programme boobu yàgg état moo ko fa teg li nga wax. Mhm. dépistage doo fay garab yi doo fay état Sénégal amul fay garab kii pour sida yëpp ñoo la jël. en prise en charge totale yi nga war def yëpp la koy defal. Mhm. ñu nga xam ne tam ñoo lay jàpp di la ba nga wér maanaam bu wér nga si yaram nga amaat doole kàttan mën a dund dund bu yàgg. Mhm. waaw donc fii amul fay dépistage c'est gratuit c'est confidentiel. et c'est confidentiel surtout. c' est gratuit c' est volontaire et c' est kon defe naa ne loolu moom askan bi yëpp même ku dara ku yëgul dara sa yaram sax war nga mën a jóg mm-hmm. wax dëgg yàlla dem def ko benn yoon sax nga am nga amal nga dundaat li may wax naan ci cancer bi rek benn atu benn fenn coono la après trois cent soixante quatre jours de de de kii de bànneex loolu koy jar na ko taw li si teg moosi la aar sa bopp aar ñi parce que boo ko amee te xamoo mën nga ko wàllu nit ñi de façon. lor tamit merci. loolu nalaw ci suuf la. Mhm. bu yàgg tôt day feeñ. Mhm. te day fekk mopp la du war mhm. donc mieux vaut nga xam ne lan la ñu la jàppale la. dimbali la jàppale la ba nga sa wér gu ñëwaat. Mhm. soit ko yaa ngi wax aussi si si prévention bi li wax nga sànq nga ne soit abstinence. Mhm. wala aussi euh, wala fidélité. Euh, defe naa ne abstinence moom. Mhm. ndax da sexualité précoce bi fii ci Sénégal moom. def naa ne loolu tamit euh, war nañ cee mën a war nañ cee mën a waxtaan bu baax a baax baax ak xale yi xale yu ndaw a ndaw ndaw ndaw ngay gis aussi. ñu am feebar bi. waaw parce xam nga xam nga xale xamal nga danger bi. te bu njëkk ba amoon na je sais pas sensibilisation yi. am na dafa des dafa wàññeeku. Mhm. te xale yi léegi comme ni nga wax euh, réseaux sociaux yi dafa tax xale yi dañoo précoce. xale yi dañoo précoce moo tax parfois dañuy def mais xamuñu xamuñu mhm. danger li may wax xale yi tout le temps ñu saa si dañuy gis xale muy suñu rakk suñu doom dañuy waxtaan ak ñoom. Mhm. da gis ku ñëw mu ëmb mën na la. wala nga ñëw di def nga planifié di planifié daal mën na la fi doom mënul aw. laa ba dafay aw. te léeg-léeg mu nga dem nga nga dem nga nekk ci ba nekk sëy fekk yow jël nga jàngoro xam nga foo foo ko donc moo tax ñu lay wax ak loo bëgg a bëgg nit ki soo mënul sàmm sa bopp nga protéger sa bopp. Mhm. nga protéger sa bopp. est-ce que dépistage bi am na am na âge maanaam. dépistage bi amul âge amul âge. Mhm. te peut-être dañ naa xale adolescent mën na ko def adolescent mën na ko def mais surtout ñu toll si jur. ñoom lañ gën a ciblé. waaw parce que loolu li tax loolu ñu toll si jur. jigéen boo doonul sutur mu nga jël ëmb kon da nga yor ñaari vie nga yor sa bos ak sa bosu doom bi nga ëmb mm-hmm, mm-hmm. waaw mm-hmm. bos ak bosu doom bi bi nga ëmb boo gisee xale ni koy dépisté day fekk yaayam am ko bu yaayam amee bu ko yaayam amee wala papam am ko foog doom yi ñu xool ndax amuñu ko waaw pour mën leen aar lépp pour ñu wér rek famille bi wér kon amul âge mais loolu ko mooy âge xale yi xam ne dañoo toll si wàllu jur waaw d' accord alors waxaat tamit si si prévention ba léegi nga a fidélité bi mm-hmm. euh, bu góor ñi am ñetti jabar ñeenti jabar ak takk ak fase gi di dem ñooñu yan ban ban ban kii lañu comportement waaw ban attitude lañu war a jël ak doon jabar yi doon nii Sénégal suñu philosophie tollagul foofu nee mm-hmm. naa bila prénuptial maanaam balaa ngay takk nit ki mm-hmm. tey boo ne ko góor nga def analyse moo xool sax nga amoo jàngoro mu meral mu la wóoru sëy ba tas na waaw man la wóoru woo ma kon man noonu ku jigéen ki ma xool ma mais alors que lu pour yéen ñaar ndax def naa ñi ànd ñaar ngeen am njaboot. Mhm. donc loolu la ñuy nekk dafa war ngeen dem xool seen bopp. Mhm. pour suba. Mhm. drépano baa ngi fi syphilis baa ngi fi hépatite baa ngi fi leneen ak leneen ngeen faju parce que wonoon mariage muy ñaari religion yëpp c' est pour le meilleur et pour le pire. wallaay donc war ngeen sàmm ku nekk seen santé. ndax da ngeen di jur suba mën a wér. mën a wér. donc loolu nga wax loolu loolu laay kii ñu góor ñi tamit ku nekk war nga sàmm boo nekk sàmm sa bopp sàmm ñi nga ñi nga ñi nga ñi nga ki ngay sëyal wala ñu nekk si biir sëy bi ndax mm-hmm. may wax kenn ki mun na dem infecté wu wàll ñeneen ñett ñëpp dem naan benn néeg néegu waaw damay tooñ góor naa ne ñoom ñooy jigéen ñi ordinateur yi. nga démb maa koy wax suñu émission matinale lii lañ doon def femme ESG ñu nekkoon ci bi. Mm-hmm. ma naan leen ñu ne ma ñu xool taux de prévalence bi. Euh, ak nous nous nu ci jigéen ñi par rapport ak góor 0,5 mm-hmm. fait 0,4 mm-hmm. on se posait la question lan motax tax benn góor la mm-hmm. mais benn góor bi am na possibilité am ñetti jabar mm-hmm. donc moom mm-hmm. déjà su fekkente ne moom dafa infecté rek ah mu wàll na ko déjà du coup ñetti jabar yëpp la wàll na ma ne ko aka neexoon tey jii ma ne ko du du caaginu jigéen ñi ay fookat lañ moo tax taux bi gën a ëppee si ñun mais imaginaire yow madame Fall affaire yi ñu dëpp woon ñu ne jigéen war na am na droit am ñetti ñetti jëkkër léegi man waxuma la waxuma la 0,5 pour cent waaye dinañ fi gis 25 pour cent ko gis ci góor ñi jël ci jigéen ñi 0,4 pour cent. waaye li ñu jaaree moom loolu la moom li ñu wax moom. <laughs> loolu la parce que parfois man damay gis euh, dañu gis koo xam ne ndeysaan jëkkëram day feebar. <laughs> mu ñëw mu gaañu kenn ci frère yi doon na ko. billaay mu doon a ko te jéemoo lijjanti kii lan moo tax. mu gaañu mm-hmm. te kii ki ñu lay doon day fekk mu fekk sa ay soxna soit kenn soxna lu mu fekk mu ñëw kooku amaana bu fekkee feebar am na ko. bu mhm. ñëwee tas si kii bi. tasaat na te yàlla dafay jigéen mu bindoo. contamination su moom la gën a yomb ko ci bu góor. billaay ba tax mu gis ko bu ko jigéen ki am ko te bu góor du ko am. dégg day am. Mhm. mu day am. Mm. waaw kon daal sa sa de prévalence bi gën a élevé si jigéen ñi. Mhm. waaw kon nag nañu nañu seet rek. Eh, kenn terewul kenn takk. kenn teral kenn te nekk polygame mais mm. aussi tamit nañu wàccee mentalité yi mm. ba nga xamante ne balaa kenn di dugg ci sëy mm. ah, nga dem def say def say def say test non seulement pour sida bi mais pour yeneen feebar yi nga xamante ne aussi dafay dafay dafay gàllankoor couple yi dafa am solo il faut que ñun aussi ñu am mentalité boobu vraiment xam naa ne am nañ liggéey ñun ñu nekk ci wàllu sensibilisation bi bu baax a baax mais lu ñuy wax aussi yàlla tàbbi ci nopp kuy dégg euh, loolu tasatul sëy nañ dem saytu suñu yaram waratul tas sëy mm. waratul yàq diggante donc confiance nga fa waaye ngeen sàmm comme ni ko madame Fall waxee ñi nga xamante ni ñoom ñoo nar a soqeekoo ci biir couple boobu donc ah defe naa ne kon leer na naa ñu beneen bi mooy xam naa ñi nga xamante ni dañ leen di sàkku mhm. ñoo ñi nga xamante ni du seen du seen volonté mhm. parce que nit ki mën nañ ko violer aussi moo mhm. du ci xam bu duñ ko yóbbu hôpital loolu lañu war a wax madame Fall ku ñu violer nan la yóbbu hôpital est-ce que yéen yéen a ngi sensibiliser bu baax par rapport ak saa waaw jaar yi loolu sensibilisation dafa des dafa des parce que xam nga ñi ngay gis ñi ñëw ci yow nga mën a gis. Mhm. comme lu may def ni déplacé wu parfois lu nga ñëw ñu au discuter si cas problème peut être alaanu dina ñëw après. Mhm. mais nit ñi yegguñu foofu am na xam ne kersa si ñoom. wallaay bu ñu leen violee même ay mag da leen di daal duñu wax dara. ñu nës nësal. waaw dañuy dem kenn du leen xamal léegi dem toog. Mhm. duñu wax. ana après lañ koy doo ko wax. Mhm. loolu nag mooy musiba bi. parce que la mhm. fekk ci mbedd mu def lu bon te yow xamoo nit ki kan la. xamoo ban feebar la yem kooku amaana tàmm na ko. waaw def ko tu bon da koy tàmm. def ko tu mbedd tàmm na ko kon na feebarul fenn. Mhm. mi ngi ko dëkkatas si yow xamoo. donc mieux vaut prévention la. nga dem jël say garab ñu aar la benn ci ëmb. aar la ci feebar yooyu. ak ay syphilis ak yeneen. kon daal ñooñu li ñu leen di wax mooy képp koo xamante ne sàkku nañ la. que nga xam ko que nga ñàkk ko xam de façon discrète maanaam ci sutura yootal ndànk nga dem ci hôpital mm-hmm. boo demee boo expliquer sage-femme bi mm-hmm. moom xam na fi mu lay teg xam na fi mu lay jaar ba xool la parce que defoo ko parce que da nga bëgg a weeru mais da koy def parce que da nga bëgg a aaraat sa bopp mm-hmm. parce que mën na nës xam nga viol bi moom mën nañ ko nësal yàlla mooy la suba ëllëg jëkkër am jëkkër ju la comprendre am nga ndaw amoo ndaw mu tàkk la ci noonu ndax bëgg na la wala nga dem mais feebar bi mënoo koo réparé. te doo mën a expliqué lan la. mënoo expliqué kañ fan koo koy expliqué lay wax. da ngaa nekkoon xale boobu moo tax kuñ ci violé à l' instant T. li ngay njëkk def mooy demal hôpital. waa hôpital ñoom defe naa ne xam nañu bu baax a baax a baax lan mooy seen lan mooy seen wareef alors defe naa ne kon foofu leer na naan laal nañu ponk prévention bi léegi ñu dugg nag ci li nga xamante ni moom mooy mooy jaaxal nit ñi parce que li tax ñu ragal sida mooy euh, ku am rek bu njëkk lañ daan quoi am rek

foo ñu complété ne yaa ngi ko jël am ñuy jël di di même feebar di arrêté sax waaw di arrêté léegi nag alal boo ñëwee mooy feeñal ndax affaire baa ngi wàcc wala déet nga ndax yaa ngi topp si kii mhm. bu dee toppoo ko ñu ñaaxaat la wax la importance bi lu war nga war a jël sa garab mhm. pour nga gën nga wér mhm. pour mu gën maanaam doo kii bi doole feebar feebar waaw donc ak lee am nga chance nga gudd fan nga gudd a ëpp gudd gën a gudd fan sax ku ko amul. Mhm. boole ci nga mën a sëy sa sëy normal am say doom te sa doom duñ ko am. te garab yi il paraît que dañuy dundalaat ay moom la dañuy dundalaat ay mhm. te tamit tam lu mu la wax li ñuy ragal si sida bi mooy wàllaate te garab boo ko jël dootoo wàll kenn. Mhm. muy sa doom muy keneen mënoo wàll keneen. kii kii interrompre traitement am nag kooku yan lan moo ko ci nar a fekk. lu mu la wax rek feebar bu yàggee da ngay néew doole feebar. moo yóbbu ci dee bi ñuy xalaat. Mm-hmm. maanaam traitement ko garab yi ak lu mu faj faj boo ko jëlee benn instant eggali sa traitement. da ngay rechuté traitement bi à la. à la à vie la traitement à vie de wax naa sànq feebar comme tension. ci xas am tension ba ñu leen di découvrir ne il faut que rek à la. Mm-hmm. mais li si laa gën a yomb tension ci man sax mooy tension dafa am régime.

d'accord ci ah kon du espérance de vie bi kon nañ jàpp ne kon euh, sida am sida fit jamono toll wuyondiwul ni da war a da ngaa faatu mm-hmm. booy topp say traitement jël say garab normalement di mm-hmm. dem say rendez-vous mën nga say fan sax mën na gën a yokku parce que déjà sa cellule bi mm-hmm. euh, say cellules yi garab yi ngay naan dañuy naan dañuy revitaliser sa say cellule donc defe naa ne tamit loolu tamit am na am na avantage par rapport ak ñi nga xamante ni peut-être amuñu sida sax bay jël garab yooyu parce que parfois nga gis yenn garab yi nit ñi jël di ko utiliser même drogue bi sax dafa am lu muy faj même drogue amna lu muy fajj waaye ñun utilisation abusive bi ñi def mom mom moko yag parce que euh lool mom xamna dinañ ci ñew tem ci garab yi nga xamanteni xalé yu jigéen yi aussi dañ koy utiliser pour wu té pour nit alors que amna benen amna benen bi bo xamanteni mom moko ne moom moo ko aussi euh, ngeenel la alors ñu ñew nak ci li nga xamanteni mom moy moy tam bi deug deug deug muy sida vie de couple de mm-hmm. ko wax couple wax jigéen mm-hmm. nak ngeen di dundé sida dans la vie euh, du couple euh, du couple mm-hmm. waaw jaari loolu tamit lu am importance la. Mm-hmm. wax naa la sànq nit buy sëy dañ naa pour le meilleur et pour le mm-hmm. maanaam mu neex mu naqari dañ war a jàppalante. muy si côté ku góor bi muy si côté ku jigéen peut être man si côté ku jigéen laay gën a mën a waxee. parce que mm-hmm. jigéen ñi lañuy euh, jànkonteel ñoom la ñuy faj. Euh, bu ñu découvrir parce que nee naa sànq képp ku ëmb. c'est systématique du force nag moom. mais c'est systématique nga découvrir nga dépistage bi boo ñëwee sur place laa la ko defaral. nga toog du yàgg moo wax résultat bi nga gis ko comme test de grossesse lañ koy defee. sur le champ sur le champ sida bi ak syphilis lañu boole mooy doxicité bi dañ la koy si fi nga toog si chaise bi ñoo la amoo ko ne la gënal góorgóorlu. boo demee da boo mënee nga ñaax sa borom kër. moo tax mu dem xooli ñu wax la risque yi li nii nga gën ko moytu. waaw parce que jigéen bu ñëwee sa jigéen boobu da nga ko war aar ni eh, eh, eh, nga aar ci tétanos di aar si ndoxu siti di aar si mu tudd mu ñàkk deret yi yëpp <laughs> war ko aar si sida tamit doom bi bañ ñu am femme bu ko ko avant doom ba daal di mhm. ko jox mel ne ku koy daw te mhm. gënul parce que kooku dafa soxla ku ko jàppale ki dem ba léegi ñu dëkk bi da nga am sida ku la jàppale ku la dëgër dëgër laay. mais jëkkër ji est ce que war na ko daw parce que jigéen ki am na sida yooyu yàlla mën na def yow moom boo ko dawee sa yow nature la nit la. nature nit la nature góor la waxal nature góor la. nature nit la. réflexe mu njëkk mooy da may daw ah la ma wax rek moom lu jëm xool boppam. dinañ fekk saako ndax am na ko. yooyu yooyu préféré ba nga xam ne parce que nekk da ngay jàpp yaay waat sa morom mais comme wax lu ñuy wax sànq moo di tax nit ñu ko jëlee fu mhm. waaye lu des mooy boo demee ba xam ne am nga ko jëlee sa responsable bu dee ko góor nga jàpp sa jabar mu faju mhm. ndax yàlla ngi tudd doom jooju ngeen fexe seen doom bañ ko am mhm. di ko soutenir boo waree dem nga ànd moom moo gën boo waree def analyse am nga ànd moom buy jël garabam sa nga fay fàttali garab bi jot na ndax lu wax naa la wala mhm. dañuy laaxatu dañuy laaxatu loolu daal du bëgg dem ba duñuy jëliti dañu war a dem jëli garab yi hésité xam ne bëgg ñu ko leen fekk lu ko doon xàmmee la bu ko defee loolu yëpp day yàq traitement te a nettali nag dañuy waaw day day bi moo tax ku xam nga xam sa jabar am na ko jàppale ko ngeen dund ko yéen ñaar mhm. dafay jàppale ngeen di ànd dem daal sax gis naa ko fa am góor yoo xam sax ba mën a àll ba ñoo xam ne ñu ñuy seen jabar garab ci teen la bokk boo rëy ñëw rendez-vous ñu ne xaaral leen jël ko garab garab bi doo ko jël noonu parce que booy ñëw dañu xoolaat sa yaram xool la amoo benn problème daa la amoo benn problème jafe-jafe si garab mais xam nga soo ànd sa jëkkër dem hôpital di si garab donc da am ko ba pare nit ñeneen ñu la gis Mm. dañuy yaakaar xam nga jigéen ak góor fu ñu ànd ak hôpital rek ñoom gars yi ay affaire de ëmb la xalaat donc pensée bi dinañ ko détourné feneen mm. dañ parce que loolu nekkul suñu culture kii mënul am sida di ànd ak jëkkëram wala et donc ji góor ñi dañ ci am part responsabilité bu rëy rëy rëy rëy madame Fall ñu noonu nii ci biir bi sax même sa jabar boo ko jàppalee yéen dund ko moom si biir famille mënu ko dund mais bañ dee gis ngeen jàppante nga koy abandonné nit ñi jéem a xam lan. laaj lan la wallaay. Oh. donc moom ku jege rek mujj nekk mal à mm-hmm. te ku sa xel dalu mënoo topp say traitement normal. Mm-hmm. mënoo sa traitement normal. Mm-hmm. am ñi ci fas seen jabar dem takk feneen loolu lépp am na ci am na ci ci biir kii bi mais dañ leen di delloosiwaat seen xel. dañu wax rek yàlla lu mu la teg moom jéem ko nangu nga. fay saafara ko te li mu wax sànq. man de gis naa ko dama ko naw mhm. ñun assistance sociale bi dañ ciy liggéey mhm. képp koom dañ lay jàppale mhm. nga dund su dund normal ay ati at ëmb aussi def sa plan ba boobu ëmb nga mbaat sa doom du ko am nga ko sa vie normal bi nga daan dund si kaw nga sa garab ñu la koy waxee nga ñëw chaque fois lañ la koy may ñu jox la ko bu la defal sa nga defaale say bilan xool sa ne mm-hmm. yaa ngi topp sa traitement normal. Mm-hmm. loolu léegi yow wax nga léegi si nga xamante ni moom mooy moom mooy jëkkër bi. Mm-hmm. mais ku ne xam na ni sëy nekkul Sénégal du yow sa jëkkër kese. mais parfois aussi entourage ñi ngi nekkal ci biir kër gi. gor yeeg njëkk yi ñoom naka lañ leen di naka lañ leen war a gérer wala naka lañ war a gérer aussi malade bi. waaw yaa wax jaaree gor yeeg njëkk yi. mais dama ci boole sa sœur yi ak sa yaay. te du la jur am na am nañu feebar xam nga xam wax naa la sa jëkkër mu supporté la lu neex la. Mm-hmm. lu yombal faj bi la. Mm-hmm. mais parfois gis koo xam dafay dellu seen kër maanaam jëkkër ji da koy bedd mu dellu seen kër. mu koy dal mu delloo yaayam moo fa nekk yaayam ko jur ak sœuram te kooku lu nekk ci xelam bëgg na ko séddoo kenn koo xam ne moo koy oyofal yoon bi. sens de nekkul yoon bi day am dañ koy gis koo xam ne sa sœur moo lay supporté. loolu sa yaay moo la koy xamal. foofu mm-hmm. am kenn ku la koy xamal ko moo lay jàppale. parce que di nga toll foo xam ne yow doo mën a sa bopp moom moo lay moo lay moo lay jàppale mm-hmm. te ku xam sa jàngoro moo la mën a dimbale mm-hmm. donc comme dañuy wax rek kenn ñaanu ko mais yàlla lu mu la teg dañ koy tegoo topp yoon bu ñu la wax nga mën a wér mm-hmm. mën a aar ñi a wàllu sëy bi man mënuma ne waat ne sama dëkk sama neex mënuma ko waat. du dëgg beneen jigéen su góor bi ngay dugg tamit xamoo kii am na ko amu ko. Mm-hmm. ak Sénégal mu doxee la da gis ni ko ci moom. yaakaar rek waaw ku ñuy dem ngay dem di def ñuy def sa analyse na comme rek nga xool yaram. Mm-hmm. jigéen bu deful analyse bu ëmbee day nangoo def analyse yëpp ndax doomam yàlla def tey mm-hmm. loolu sew ki nga nekkal ba sos doom jooju war na la mën a supporter. sa yaay bu la jur wala sër bu la jege war na mën a mën a supporter di ànd ak yow mm-hmm. Mm-hmm. yi di la ñaax na la topp sa traitement mm-hmm. te loolu mën a mën a dimbali nga wér sa njaboot sa doom li ciy jur ëmb boobu nga wér mu loolu daal lañ am la ñuy wax surtout population bi population bi kon boo ko euh, dégg nañ conseil yi nga xamante ni moom la ñu wax nga xamante ni ñi nga xamante ni ñooy am feebaru sida moom la ñuy jànkonteel seen biir néeg yi surtout nag jigéen ñi jigen ñi ñom ñoo ci gëna a sonn sonn sonn parce que goor ñi sax ñom mën nañ ko neub sax du am du du du ki mais jigen jigen limu lamb bari na. benn jigen bu yàqu rek na la leen ni. c'est parce que toute une société population mom mom mo moo kon bok nañu nañu ar bu baaxa baaxa baaxa baax ci baax jigen ñi alors léegi ñu gis ne. Euh, li nga xamanteni mom moy mom moy mom moy euh, sida bi ci bopom euh ñu bari nak mom wax deug yalla xam nañ ne. sida moom ñu koy faj mais li dese seen bopp ba démb suñu émission bi li des si bopp bi mooy mm-hmm. naka ngay amee sida di sëy te doo wàll te doo wàll sa doo doo wàll sa jëkkër naka ngay amee sida di nampal sa doom te doo ko wàll mm-hmm. techniquement loolu moom man mënu ma ko woon expliquer c'est très technique euh, maanaam nu mu la ko mën expliquer man bu terre à mm-hmm. euh, boo jëlee taas par exemple nga def ci ndox def ci diwlin xam nga diwlin ci kaw xar astafurlah ndox mi day ci kaw doon lu nekk ci suuf. day tëmb waaw am na quantité ni muy tolloo booy sotti léegi day ànd ak moom sotteeku doon bu ne tuuti mhm. nga xent ndox mi te doon lu ci kaw. maanaam gursi bu nekk sa yaram. Mhm. bu dee taux bi dafa élevé li nekk sa yaram dafa bëri. boobu mhm. da nga koy wàlle day aw ci meew bi booy seey day aw ci maniw bi. comprendre mais bu fekkee nag da nga jël garab yi. day wàññi virus yi da koy wàññi bu doodu produit bu tuutee ci des mhm. lu tuut di ci di ci des munul aw si kii bi maanaam yu génn mënul aw si meew bi moo tax ki nga xam ne dafa yàgg jël traitement am ba yàgg na di faju mu dem après mu ëmb kooku fekk yàgg na jël traitement mu dañuy vérifier tuuba analyse boobu ñu de foo ndax kii bu wàcce na bu wàcce li nga xam ne ci yàlla forte chance mënul wàllu doom bi mais terewul xale bu juddoo tamit nañ ko xool yaramam ne jàllul ci kooku tam mën na nàmpal ween normal mhm. affaire bi feebar bi du aw si ween bi mhm. parce que tuub dafa feebar mënul aw ci mhm. moo tax am na bu baax li mu wax loolu am na réalité la sida kenn mënu ko faj pour na dangay faj wér la amul mais mën nañ ko néewal doole ba doole du jaay doomu du mën a jub pour kii wala nu mu tudd xam nga ko tey war dem sa doom. Mhm. wala mu jub dem sa jëkkër fekk sa jëkkër amu ko. Mhm. moo tax loolu du du a gis ko boo xam ne ku jëkkër ko am ku góor ko du di sa jàpp traitement moom mhm. ku sa jëkkër doo waral say doom. si ko mu topp sa traitement ku góor ki noonu. alors euh, madame Fall euh, ban conseil en tant que euh, technicien nekk ci ci liggéey jigéen ñi. Mm-hmm. di gis nag ba pare boole ceeg noppi tey jii bu la buñ la tegoon tey jii ci semaine bi yan recommandation sax laay wax yi nga xamante ni ngay joxe parce que man am naa benn recommandation. Mm-hmm. sañ naa ko ñaan par exemple yi. Mm-hmm. man à ce que. képp koo xam ne danga mën a lor soo ñëwee. dépistage bi mu nekk lu obligatoire. parce que loolu moom mooy mooy sàmm ki nga xamante ni moom mooy parce que am na ñoo xamante ne dañuy ëmb ba wasin duñu dem hôpital. donc foofu je pense que bàjjenu gox yi am nañ fa. am nañ fa liggéey. Mm. je pense que ni relais yi am nañ fa liggéey. Mm. am na ñoo xam ne peut-être suñ ko defoon obligation euh, imputé ko peut-être bàjjenu gox yi ku nekk ci koñ nga ëmb ñu ñëw ñu ñu ñu seet la. parce que dafa toll jamono moo toll foofu comme sida bi ni mu toll noonu cancer bi aussi dañ ci war a toll fan feebar yoo xamante ne fan ñu jóg ci parce que de façon volontaire man je pense que loolu début feebar bi bi mu doon doog a ñëw ñëpp ragal ko moom man mën naa ne gis nañ ay avancé am nañ fu wóor fu ñu ko teg dafa war a nekk ay obligation vraiment man foofu daal bëggoon naa nga ñaax ci non seulement population bi mais nga ñaax ci sam autorité étatique yi nga xamante ne ñoo ngànk wàllu wàllu gi aussi waaw jaar yi foofu man dinaa wax ne am nañ changement tuuti. ndax am na changement tuuti kon dama liggéey ci loolu. damay xool sama liggéey bu ko xool jigéen yu wérul la. bu njëkk ba da nga daan gis nga proposé déjà test bi ñu amoon sur place ni mu si saa fi nga toog ñu lay bindalee sa carnet defal la sa test nga dem. bu njëkk ba da nga gis xam ne kay proposé mu bañ. nee na def ma ndax day ragal. loolu la ñu defalee ñoom counseling bi

donc kooku. Mhm. gaz li nga wax mooy maanaam waxtaan bi ñu waxtaan ak yow xamal li waral importance nga def dépistage bi. Mhm. dañ la koy wax ne dañuy aar sa mhm. kenn xamul man mii toog di la xaw ma su ma def defule xaw ma sama statut. te tey yi yow ñaanoo yàlla li nga am feebar di ko waral sa doom. te jigéen bu ne ko xoo xooku day nangu. moo tax man dama naan cent pour cent sax malade dañuy nangu def dépistage képp koom da nga koy def. bu ne obligation ni obligé leen peut être am na yeneen structure yoo xam ne am na yu dul nangu mais damay jàpp ci waxtaan bi la nañu wax ñoom la. si waxin bi la lépp loolu wax moom mu nangu. kon donc da ngay day day day baax ñi nga xam ne ñooy nekk ci béréb yi aussi ñu tàggat leen ba ñu mën a ko am am benn benn benn verve merci communication voilà ba li nga xam njëriñam ko jël jóge këram ñëw ba ci yow kooku ñëwul pour bañ te te te nag borom agent agent agent sanitaire tam du du du yomb mm-hmm. même bu fekkente ne yaay infirmier bànqaas bi gën a ndaw mm-hmm. nit yi dafa mel ni comme rek police ci koñ ASP bi da nga koy gis mu sol tëneem sax day dalal sa xel donc li nga wax dëgg la tàggat aussi euh, ñi nga xamante ni ñoo fay nekk ba nga xamante dañuy am moom am na ci solo lu ma doon tamit sa obligation bu ko obligé woon nit ki am neex na mhm. mais na nga fekk nangu a accepter parce que dañ naa loolu mënul nekk di leen dem toog lu yàgg tëpp si wéet ak bopp de nga yow tam nga naxanteeg ñoom ba ñëw nangu jot parce que boo dépisté woo nga xam ne am nga ko te fajoo amul njëriñ ba pare waaw ñu ñëw dépisté ñëw dépisté mu toog këram mm-hmm. est-ce que amul tamit loolu kooku lu ñu koy topp amul tamit mën ko forcé waat mu ñëw mu ñëw faju faj tamit du forcé nit faj mais bii day laa daan bi fan laa ko xee man mm. te dafa am te doo ñu metti la. Mhm. parce que bu doonee ëpp loolu laa leen di ñaan. Mhm. ki nga xam ne am nga ko. Mhm. daanaka xale yu góor ko xam ne xam na ne am na ko. mu wër di ko wàlle. nga dem takk xale bu jigéen. am ay rànk yi waaw wàll kii mu dem suba ñetti sa doog nag wàll naa la si daal dafay am. nga xam ne yow consommer xam nga ko nga jóge benn dëkk benn dëkk xam nga am nga ko nga xay wàllu nii. xam nga dafa mel ne daan parce que loolu xëy na joué nañu ko théâtre mais am na parce que am na ñoo xamante ne koo xamante ni mm. dafa dafa doon Euh, génn nag benn xale bu jigéen beneen waaye bu am xaalis ñëw takk ko moom mu dem tukki ñëw indi si daam qu'est-ce qu'elle fexe ba xale bu jigéen bi tas mu ñëw takk ko wala ñoom ñaar ñu di ko mu wàllu ko ko la vengeance yooyu moo tax ma ne est-ce que kon du ñu def du ñu ku ñu saytu ba xam ñëw am nga ko mais mën na fichier téye la mu nekk benn fichier boo xam fichier confidentiel la ñu am benn cellule boo xamante ni moom mooy saytu yooyu di leen topp fu waay nekk ñu jëli la parce que benn instant man bokkoon naa ci benn programme boo xamante ni dañ daan def ci ci koñ yi par exemple ku ñu ciblé ku dem def test bi ñu ciblé la dañuy ñëw daal ne la koñ sàngam mën nga bañ a nekk sa koñ bi nga dëkk mën nañu jël comme man yóbbu ma beneen koñ pour que nit ci bañ la xam mais kooku daf lay leen ne da ngay fexe ba yow da ngay tise ay relation ak ak ak kooku ngeen nekk xaritam ngeen nekk ah. ah, mhm. mhm. mhm. sa sœur nekk sa yaayu doom judduugul marraine doom yi suñu doom la. dañ lay topp boo waree xaral ñu lay xaral sa doom boo def analyse ñu defar ko analyse boo waree jël garab ñu ne jox ko garab. wala yooyu yaay sa lu wax ci yow dañ lay jàppale. Mm-hmm. ba échange financier wala daal dañ la war a mën a dimbale dañ lay dimbale. Mm-hmm. day dikk day dañ sage-femme dañ ko def lii association sage-femme dañ ko créé. Mm-hmm. pour gën a jege ñi koy dund. parce que wax naa jafe-jafe jigéen mën am ci biir am feebar ci biir sëy. day dikk yaa koy jege. mooy di loolu nga wax noonu si biir koñ bi. dem ko jege. loolu accent social yi la. am ñu leen ciy jàppale. ñoo xam ne am nañ jël facile dëkk ñu koñ wala dëkk na si koñ ñu ñeneen ñee tënd bu tëwu da nag ki waxtaan si ki seet si nit ki di bés ko la nga wax mu bañ a ñëw faju mhm. mais doo ko forcé da ñëw naxante moom waxtaan am nga force bi baaxul mhm. boo forcé nit ki suba ñeneen ko waroon dëkk siw lay dégg daa lay ko dañ lay forcé dañ lay si war mhm. dootuñ ñemeeti ñëw te boobu musiba day am parce que am koo vie bi mu dund moo ko tere dund dund dëgg la moo tax lépp loolu fa nga naxanteeg ñoom. Mhm. nit ki loolu nga waxoon dama ne manque compréhension moo tax nit ki ci bañ jël bañ jëm si wala bañ jël garab. Mhm. mais boo naxanteeg ñoom jox importance dañuy mujj ñëw. te neex ku ne sa bopp nga xool li ñu wax ne li bees la xamoo ko. Mhm. da nga njëkk a daw. boo demee bu réfléchir ba xoolal li sama intérêt la bëgg naa wér dañuy ñëwaat. naa ci dem waaw. kon defe naa ne loolu am na solo gis ngeen kon suñu sage-femme yi defe naa ne jar nañoo sant jar nañoo gërëm yu tooguñu rek ci bureau yi rek di liggéey ñi ñuy liggéey mais aussi système boobu man système bu ma saluer la parce que dafa amoon benn programme boo xamante ni mooy ñi nga xamante dañ doon topp ñi nga xam dañuy jaay seen bopp ci mbedd yi mm-hmm. donc programme boobu man nekkoon naa ci mm-hmm. vraiment am ci ay am ci ay xaritan ah. mm-hmm. mais nag dem nañ ba benn instant man dañ ma doon persécuté parce que ñi tëgg programme bi dañ ma daan woo naan naa leen jox ay tour par force man leen loolu du leen ko jox du ko def c'est confidentiel man sama rôle mooy que waxtaan ak ñoom tekki leen orienté leen voilà ba léegi maa ngi leen koy wax ni ñoom ba tey ubbi ma sama gémmi waxuma kenn maa ngi gardé confidentialité bi ci sama biir eh, di ñaan suñu collaboration mu continuer parce que am na yoo xam ne boo koy liggéey yàlla kese nga koy defal defaloo ko doomu aadama mais fii moom programme yi mooy organisation yi dañuy dem nga xam dañuy gis xaalis yi ba boo deful ndànk mi wala yow bi sax di nga def nga loo xamante ni sa éthique ak sa déontologie du la ko may loolu aussi ñuy ñaan aussi formation yi ñuy dàbbali di recycler bàjjanu gox yi di recycler relais yi recycler sage femme yi aussi si li nga xamante ne moom mooy mooy éthique boobu ak déontologie bi nga xamante ne moom la ñuy sàqloo ak ak ak ak malade yi euh, dafa mel ni heure bi paj mi nag moom heure dafa gàtt trop ah moom moom moom dëgg man damay heure bi day daaw ah Moussa sama heure bi gaaw na de <laughs> alors waaye xam naa ne madame Fall moom duñ ko bàyyi dinañ commencé di dàbbaliwaat programme yi ñu koy tëgg di ko ñëw mu koy faram fànce benn yoon ndax moom xam-xam bi màcc na macha allah xam na li muy def ànd na ceeg dal ànd na ceeg tey kon nag suñu choix ci moom eh, eh, tàmbu ni na vraiment kontaan nañ ci madame Fall eh, xanaa ñu bàyyi la dernier kàddu gi nga joxe conseil wax ak lan ngay jox askan wi. waaw lu ma wax rek euh, askan bi wàllu santé moom it ku nekk. Mhm. pour nga dund tal liggéeyi tal toppoo sa njaboot foog nga wér. Mhm. foog nga wér. Mhm. donc santé lépp loo ci dégg ñu ngi koy defar wala amul fay nga dem xanaa man nga ñàkk am doole même ba amul doole sax. demal hôpital bu ñuy am social ñooy awee ba ñu jàppale a faju waaw hôpital am social boo ñëwee la social bi nekk. nga a jàppale ñu jàppale bi ñuy wax. loolu ñu mën a jël en charge la dimbali ba tey dafa war nekk loo xam ne nit ñi dañ koy fàtte day dellu ginnaaw néew doole mhm. ñun seen ñun ñu nekk africain laa sax ñoo ko a delloo ginnaaw mhm. par changement de comportement mhm. lu ñu wax ci yëpp dégg nañu wax da koy wàll lu nekk war ko bàyyi parce que nee nañu léegi ci bi dafa avancé dund bi dafa avancé gis nañu progrès yi am lépp euh, lu ma wax lay jigéen dëgg la dund neex na jeunesse neex na trop. loolu rek la suba da nga ko war a xalaat. une jeunesse malsaine. waaw suba da nga ko war a xalaat. ku nekk di nga màgg ñaan nga gudd fan. Mmh, am mmh, njaboot. Mmh. li nga nekk tey ji xaaral sa njaboot suba. waaw balaa ngeen di loraange boo xam ne doo ëmb kenn du ko xam. nga depuis sa xool sa bopp xool sa yaram. ndax wér nga. ndax yaa ñaan suba am doo. def bilan góor yi tax soxna yi tamit ñoom ñoo tax ñu kër yi dañu mm. wax ñoom ñooy clé USB ñoom bi te yàq wallaay waaw clé yi da ñoom ñooy virus ordinateur yi jigéen moom lu ñu am fit mais <laughs> ñoom daal ñuy sàmm njaboot ñooy sàmm njaboot bi <laughs> ñu sew parce que jigéen moom soo ëmbee rek analyse mais góor kan moo def analyse duñu duñu dem jamais. man de dinaa ko man ma xam naa ne am naa fit am naa fit am mais xam naa ne loolu laa war a mën a jàpp comme may toppee jigéen ñi naan leen dem leen ngeen damay da ngeen di dem ngeen dépisté wu ji ah wutal ma bayeer rek wutal leen ma bayeer. yaa ngi yàlla sàmm nañ njaboot bi sàmm ñun sénégalais yi ñëpp ñu fi nekk <laughs> jigéen bu nekk góor moo koy sàmm wallaay mm-hmm. mm-hmm. ngeen mën gën a sàmm seen bopp gën a mën a fagaru. Mm-hmm. aar njaboot koy sant ak koy gërëm. ma ne koy sant ak koy gërëm. waaw ndar macha allah di nuyu sama borom kër sama doom yi. bàyyi kër ñëpp maa ngi di. monsieur Fall nag di lu ma waxoon sànq remercier directeur télé bi. Aliou Faye. waaw ah Pape Doumbia. waaw Doumbia ah ki kenn du moom sama sponsor officiel la. parce que li ma ñëwee ci sama yàlla bëgg la ne sant foo ñuy sensibiliser su ñu gisee yenn problème si biir état bi ñuy ñëw muy viol yeeg billaay yëpp mm-hmm. dem naa sensibilisation des na mm-hmm. tey yàlla def na mi yaa ngi koy def yaa ngi tam yàlla jàppale la gis nañ mm-hmm. soxna fi ci taxaw ak Moussa mi nga ànd ñu sonn ci ensemble yaa dana yaa jàppale ngeen yegg foo xam ne seen jotu yeggu fa daal amiin amiin amiin amiin remercier téléspectateurs lu baax suñu borom bi la macha allah dara dëngu fi macha allah yow chaque fois danga koy teg ci yoon teg ko ci axe parce que du leen xam-xam rek la ak compétence. Eh, lutax tax buñ nee taamu dina rek day sawar yow di la ki parce que xamna ni compétence nga kon yow lan fan la teg eh, matale nga ko te bu le prestige soxlawé nga juk manam comme ni ko waxé rek yag nga ko di di bëgg eh, Pape Dumbu yaay ñew motali yéré gi motax collaboration bu wax dëgg yalla heure bu ñu leen soxlaawee ak lu mu tang tang ak lu mu guddi guddi guddi lu mu xat xat xat xat xat xat xat ma ngeen bàyyi seen lepp ngeen ñew kon yalla na leen yalla fay parce que ñu wara and tamit yeen yeen yor fajj bi ñu ñoo wax ñoo yor si mm-hmm. li ngeen di wax bu fekkee dañ ko bàyyi ci entre ñaar quatre murs yi rek sa tànk bi jël sa bureau bi madame Fall fu nekk nga dem fa taxaw di wax à suñu caméra yi ndaw yi ngeen di gis nii donc donc donc lu ñu mën a defee ba xeex bi li ñu bëgg a xeex ñu am ko ci yàlla may ndam euh, di remercier aussi comme ni nga ko waxee Pape Doumbia sama sponsor officiel Pape moom mooy borom mais di remercier aussi le directeur de l'hôpital régional monsieur Alioune Faye sama xarit boobu di remercier SAF mais mënu na euh, na waaye faa demal def émission jëlal kii moo may placé parfois ñu bëri di ko wax ne moom nag mi ngi bay waaram ci bu baax a baax a baax baax ci santé da ko bëgg ci xolam ak toute l' équipe nag de la maternité waa maternité man aw ma seen fay yéen a ma bëgg mais maa leen bëgg pire di leen wax ne sama numéro ngi nii émission paj maa ngi nii képp ku ci bëgg a jàllale loo bëgg a jàllale ci wàllu wér-gu-yaram ñëwal ñu jox la dëpp la suñuy caméra jox la suñu micro nga jàllale ndax wér gi mën a mën a saawaan baawaan kon mbokk yeeg xar ci loolu lañ leen indiloon tey ci nga xam ne mooy prestige paj mi euh, di wax ne rek Moussa nga may ma ma jàllale benn information bu ndaw loo xam ne man la concerné waaye ci wàllu paj mi la parce que le 4 février incha allah la ñuy célébrer journée mondiale de la lutte contre le cancer ku ne du jeex comme xeexam dañ koy yëpp parce que ñun ñoo waxoon population bi ne leen du ñu yem ci octobre rose kese mm. donc y une journée au niveau de l'hôpital régional mm. ci salle de conférence ba HPS Thiès moo koy organiser ànd ko waa maternité bu hôpital incha allah ñu jéem a sensibiliser nit ñi ànd ko aussi association albinos yi ku ne ku ne xam ne ne cancer de la peau mm. nekk na loo xamante ne instant bi ñoom sonal na leen donc ñuy woo waa Thiès yëpp nag ñëw euh, wax dëgg yàlla assister mais toute la presse euh, thiessoise comme ni ñu ko defee woon ci octobre rose bi ñu ñëw parce que sensibilisation bi foofu dina fa doy waar ay kàngam dinañ fa teew ñu mën ko baax askan wi mbokk yeeg xarit yi di lañ leen indiloon seen émission paj mi di leen jox dig daje ba beneen yoon ci beneen émission Moussa Mbaye paj mi kenn du yow ci man macha allah Daouda allez ciao ciao